kii Cheikh Sidi Makhtar la tudd ndax waaye juróom la nu ko tuddee Cheikh Sidi Makhtar Cheikh bu Mohamed Kunta Cheikh bu Mohamed Kunta Cheikh bu naamo noonu la demee muru Jaasi Mali fa la jànge Jaasaan la juddoo fii la yaroo léppam fii la ko defee kii di Mohamed Kunta ibnu bu Mamadou Kunta ki nekk xalif tey jii de ku am xam-xam la dënn bi daa fees dell alxuraan bokk na ci sëtu Cheikh bu Kunta la ba pare moo ci mag c'est un très grand soufi dañ si xam dara ku noppi la ku màndu la ku baax la ku jaam boromam la koo xam ne gëstu na sax ci wàllu asraar xam ne ci lu bëree bëri bëri bëri bëri bëri bëri macha allah kooku ñu am yaakaar ci kenn dem na dee ñu koy jooy am nañ yaakaar ne fekkee yem dina fa jël yëkkati ci tarixa bi yëkkati turu Ndiassane teg bi ci yoon fii ci Ndiassane xalif bu bees bi ñu bëri sax nee nañu xam-xam bu yàlla yor ndaxte intellectuel la moom sax nekkoon na fonctionnaire liggéey ay at ci ASECNA dem jàngi Boutilim ba ñëw nekkoon Dakar nekkoon fonctionnaire doon liggéey ci ASECNA këram ma nga Dakar njaboot yi am yëpp nag yàlla dimbale leen ay intellectuel lañu te ñëpp ay xaafisul Quran lañu nitu sunna la nitu diine la ñu bari na xamuñu ko ndax jataay yu bari daaw fa teew xalif bu bees bi di maam Cheikh bu Sidi Mokhtar Kunta nee na de liggéey bi fi maam Cheikh Bécaye Bécaye Kunta bàyyi moom la fas yéene àggali gën a yeesalaat Njaasaan asalaamaaleykum a